syndicat CNTS. STLS. ak euh, Synpics. ñooñu ñu xool ay doyens yoo xam ne ñoo leen gën a xam euh, accord cadre bi ñoo leen ëpp expérience en quelque sorte ñu tànn leen ñu ne leen en fait yéen la ñuy choisir pour ngeen diriger comité bi ñu liggéey ci ba ñu def ci benn brouillon boobu temps yaa xam. mu ngi France di faju ñu liggéey ci ba def benn brouillon xam nga liggéey booy def rek toujours da ngay sóoraale ah peut-être surtout ci wàllu presse toujours da ngay def brouillon mooy li ñu naan draft ci ci draft boobu noonu la ci kenn ci personnel bi ku ko jege la sax jël draft bi en fait yónnee ko ko mu yónnee ko waa ji gis affaire bi mu mer automatiquement, il di que le personnel est en train de comploter sur son loolu moo andi problème bi foofu la problème bi tàmbale ba yaa xam aujourd'hui dans la plateforme c'est-à-dire WhatsApp mm. bi bi nga xamante ne mooy regrouper tout le personnel mm. mu am fa ay jàppante ay waxante yu ñaaw yoo xam ne bu ma la ko waxoon tey jii nii da ngay yéemu ci kilifa. lu amul saaga kay bu ko net bu ko nettali. ah su dee saaga la moom bu ko nettali. nee nañ sax ci <laughs> jottali saaga. saaga la saaga la kon duñ ci yegg. waaw par respect pour. par respect pour nos pour les sénégalais ñuy bàyyi xel effectivement. mais mën nga junj rek ah. mais danaa si junj. parce que li ci gën a garaaw mooy yaa am fa lay jëlee ay mesures mesures yu fortes du buy nomee nit fu la koy defee ci plateforme bi ah oui WhatsApp lay bind tey nommé naa par exemple Lassana Diandi mooy responsable euh, par exemple du recouvrement ou bien responsable euh, euh comment dirais-je du don poste en fait. ci WhatsApp bi la koy defee. ci WhatsApp lay nommé ci WhatsApp la koy defee balancé ko. tu te rends compte ak WhatsApp les réseaux sociaux ni ñuy sensible c'est-à-dire aujourd'hui man di me dis management du soleil même est dans la rue à la portée de tout le monde parce que yoo tey jii ni boo amee benn note normalement puisqu'on est dans une administration mais moom munoo elle est écrite noonu la waroon procéder mais moom malheureusement mooy yaa xam ñëpp xam nañ ko parce que moom il dit qu'il le il est l'ami du président Macky il dit que. il l'ami du président Macky Sall. oui loolu moom moo ko wax. ça veut dire qu'il peut permettre de faire et de dire ce qu'il veut. li ci gën a grave. mooy. saa naan gu métti gi. naan la. ah alcool ci kër gi. xam nga quand tu l'esprit lucide décision yu bëri dañ koy jël doo ko tey. après nag tu seras obligé de revenir sur certaines décisions parce que bi nga koy def àndoo ak sa sago. yan décision la jël yu mu delluwaat. gi mais décision yi bëri na naa la si jo naa la jox quelque quelques quelques décisions rek quelques kii yoo xam ne defoon na ko fii mooy des affectations et des mutations arbitraires te quelques agents bi mu leen jëlee affecté leen ñii Louga. ñii yóbbu leen ay ay ay ay Ziguinchor ñii ay Kaolack te loolu dañoo dem inspection du travail biñ demee inspection du travail yaa ñoo ñoo ko porte ñoo ñoo ko yóbbu inspection du travail pour ñu atte leen alors biñ demee inspection du travail l'inspecteur a vu la situation mu analyser mu xool seen contrat mais ñooñu amuñu close de mobilité ñooñu mu affecté am na ci ñoo xam ne amuñu clause de mobilité c'est pas des journalistes c'est des gens de l'administration ah oui ils n'ont pas de clause de mobilité clause de mobilité nag bu fekkee ne amul ci contrat bi ñu affecté la violé nañ ko viole nañu tooñ nañ la te boo demee ci yoon yoon dina atte te loolu la yoon def bi ñu demee ñu rappelé ko ñu ne ko monsieur le directeur ah ñii kat seen contrat amul ñu clause de mobilité donc munoo leen affecté munoo leen affecté wala boo bëggee affecté aussi il faut nga def li mooy li ñuy naan modification de contrat. Oui. modification de contrat boo koy def aussi ci seen accord maanaam ci seen aval da nga leen di consulter ba ñu jox la seen seen aval ñu ne na effectivement mën nga ko def. ñu ne ko dans ce cas ñu defal la benn procès verbal de conciliation ou de non conciliation hmm. mu ne defal leen ma benn procès verbal de non conciliation ñu ne ko pourquoi mu ne parce que tey jii nii bu ñu ma yóbboon yoon ñu gagné procès bi génnul sama poche du man maay fay soleil mooy fay effectivement il a raison parce que soleil boo xoolee tey jii moom mën na jógee soleil ñu indi fi beneen directeur mais kan mooy fay c'est la structure, le soleil. Oui. pas la personne. Là, Yaham, ce n'est pas un agent du soleil. Il est, Il nommé, est nommé, par, par décret. Déc ouais. Il est nommé par décret. Donc, ça ne l'engage pas. Du moment il fait, effectivement, il a raison. Et l'amnistie si boulot, moi, il les a merdés. Parce qu'en quelque sorte, mon de fait, ce pas des gens qui. qui, qui, qui, qui... Insubordination, là, d'après lui, respecté wuñu ko day jël ay mesures peut-être ñu koy défier des trucs comme ça. beneen ban la jëlaat. alors beneen bi mooy ñoo ci Lansana Diagne. waaw beneen bi mooy. ci groupe bi toujours groupe WhatsApp bi. Euh, foofu maa ngi gis ku mel ni vieux Demba Sissokh mu ngi wax ni maa ngi blame seen syndicat yi ndax nank ñu mën a nangoo ñuy nommer di ko jaaral ci ay groupe WhatsApp. waaw justement oui pour dire clin d'œil ci internet yi que ni vous avez la possibilité ngeen poser ay questions lu leen leerul également ci commentaire waaye nag xam ngeen man ni ma koy bëggee na commentaire yi yiw jaar yoon bu ngeen bëggee ñu fësal ko su melee neneen nag du ma ko tudd oui d' ma ñëw ci deuxième point bi bi bëri na nag mais di nga ma maay au moins ma kii waaw mais parce que naa ngi toog nag bëgguma waaw comme parce parce que c' important li may wax nii mais bien sûr dinañ le sénégalais xam ko ñoom ñoo war a juger et que le chef de l'État bu déggee li ñuy wax ni moom dina xam ndax li ñuy wax ni dëgg la ou pas tey ñuy préciser na ne daalal na ko moom yaa xam du moom rek ak Racine Talla ak njiitalu euh, APS bu yàggul dara barki démb suma juum loolu dëgg la am na nu ñu présenté ñoom yi am na nu ñu présenté waaw waaw mais ñun loolu intéressé wuñu ah war na leen intéressé nag parce que dañuy xam xaar ma ñëw fii yàggal yàggal ñu ñëw ci yooyu xaar ma ñëw fii mooy mm, mm. ci group whatsapp bi aussi foofu lay waxee benn affaire mm. loolu dañu may ma cité ko <laughs> et c'est important parce que mbaa du saaga non du ah, ah, saaga d'accord ok du saaga de il faut il faut me préciser ko parce que c'est important mooy ci group whatsapp bi bu mu jotee gars yi xam nga lan la wax Vous savez, ma seule différence notoire entre nombre de gens de cette entreprise qui me détestent pour des raisons qu'ils n'oseraient jamais exposer publiquement, c'est que je ne suis pas un hypocrite et je crains Dieu. D'accord. je ne suis pas un menteur, mais je fume la cigarette, je bois, je fornique. Yaa ngi dégg. Hmm. Je l'assume. à la différence de ces hypocrites qui inondent notre entreprise par des ablutions pour ensuite, après leur, leur prière, se mettre à mentir, médire, comploter, haïr. Ceux-là sont souvent rattrapés par un mal de cœur qui ronge leur âme. Moi, je crains Dieu à tel point que même si je manque à ses recommandations, je nourris l'espoir qu'il me pardonne. Quant aux tartuffes, toujours en sabador armé de chapelets aussi longs que la queue d'un dinosaure maanaam kii yemul sax ci ay diine bi ci boppam lay attaqué comprendre armé de chapelets aussi longs la queue de dinosaure et qui croit pouvoir abuser de Dieu. non maanaam kurus gi la qualifié. waaw même kurus googu muy qualifié xam nga déjà foofu noonu boo xoolee euh, Cissé yow boo demee ba tooñ nit ki c'est-à-dire loolu doyul. tu t'attaques, tu, tu, tu, tu t'attaques même aux, aux trucs religieux. C'est-à-dire manque de respect notoire boobu li ñuy dund ñun chaque jour ça c'est une partie de ce que je vais révéler ici maanaam le personnel li ñuy dund chaque jour ci fitna ci saaga pour un directeur comme yaa Yakham man je pense que c'est c'est à la limite il ne respecte pas non seulement l'entreprise qu'il dirige mais respecté wul aussi sénégalais yi respecté wul l'institution il faut pas oublier qu'il a été ministre oui oui tey jii ni mu waroon am benn posture boo xam ne posture honorable et il a aussi été à la à la au ministère de tutelle ministère communication nekkoon na fa donc moom tey jii ni moom waroon na taxawa taxawaay boo xam ne tey jii ni on peut dire que très sincèrement taxawaay bu noble la étant journaliste Thank you.